Euh, dañ koy tàmbale euh, ci li nga xam ne moom la Barthélémy Dias daanele euh, muy d'abord conférence de presse bi déglu ngeen certainement li nga xam ne mooy sortie bi premier commentaire paasan mhm. ci yow laay tàmbale mhm. ban commentaire ngay def ci sortie bi nga xam ne Barthélémy Dias def na ko alors j'ai j'ai écouté euh, le maire de Dakar déglu naa ko en en profondeur déglu ko aussi selon ni nu xamee nit bi euh, Barthélemy est pur c'est pas la personne bi bi bi cherché quoi mhm. donc li mu li mu wax loolu la en tout cas loolu lañ tàmm si moom mhm. donc déglu naa que euh, daal di gis ne il est très engagé ku am euh, j'ai entendu parler un maire qui connaît sa cité si le dëkk xam na que miin na que Maintenant, j'ai entendu le maire qui dit que lui, la personne de Barthélemy, ne veut pas rencontrer Macky la personne de Macky Sall. Par contre, le maire de Dakar veut rencontrer le président, son excellence Macky Sall. Mm Alors, euh, li tax li ma jàpp mooy dafa insister ci loolu pour peut-être renvoyer nu ci kàddu bu mu waxoon. Mmh. ne du toog ak président. bugg ko gis alors dans le discours le contexte a évolué la réalité mooy ku ne ci Sénégal di nga toog ak président ak ka nga mënti doon mu mu neex la mu naqari la si l'occasion se présente di nga toog moom que président woo ba la neexee nga ne du ma dem libre nga ci mais à quatre-vingt-dix-neuf virgule poussière di nga dañ kumpa di nga ne lan la may doyee donc di nga dem wuy ji Alors, j'ai entendu le maire qui fait comprendre que il a envie de travailler. Maintenant, il a envie de le faire avec des gens qui veulent le faire avec lui. Sauf que des gens qui semblent, qui en tout cas ne pas vouloir le faire avec lui décident à un niveau supra, assez supérieur. Donc, il est obligé de collaborer. Alors, il l'a même précisé en disant que du ay xarit la xaritoo la seq ñoom collaboration la seq ñoom et je pense que c'est acceptable. maintenant moo mon problème mooy la capitale Dakar euh, depuis 2009 opposition moo ko yore bi Benno Siggil Sénégal di gagné Khalifa Ababacar Sall euh, président Macky Sall ak euh, ñi bokkoon foofu yëpp gagné contre Pape Diop ak Karim Meïssa Wade autant alors ko ñooñu ils étaient hyper puissants ci jamono boobu mais contexte ba amoon ci jamono boobu mooy contexte presque bi ñuy dund nii nga xam ne que population yi commencé nañu mere nguur bi entre 2008 et 2009 il s'est passé quoi on convoque le président Macky Sall qui fut un ancien premier ministre président de l'Assemblée on le convoque soi-disant pour blanchiment au commissariat central je pense que c'est ce jour-là que le camp de Wade a signé sa fin parce que Sénégal yi duñu jàpp ne kii ni mu ngi parce que war a président ci woo boo xam ni on se rend compte que en fait l'objectif c'était pas soi-disant de nuire à cette personne-là Karim Meïssa Wade mais plutôt de lui donner l'opportunité de pouvoir exposer ce qu'il a réussi donc ci lobbying ce qu'on appelait les faucons ñooñu jaxase carte gi jaxase Ablaye Wade ak Macky Sall loolu mooy dernière info yi génn alors on se rend compte que ci confusion la ñu jaxase carte gi mu jur lu ni l'un dans l'autre opposition ci jamono boobu gàddu maire bi réalité yi changé nguur nekk fi gérewul capital bi l'édile de la capitale le premier magistrat de ville et Khalifa Ababacar Sall ki fi nekkoon di président Ablaye Wade malgré malgré son entourage qui qui ne supportait pas du tout ak ci taxawaay bu ñagas et tout Wade avait un minimum un temps soit peu de bon sens pour accepter la réalité et se dire yaa Khalifa on se rappellera bi Khalifa Abacar Sall jëlee décision ci ci ambulants yi. Mm-hmm. Wade était contre et, et avait même presque soutenu les ambulants c'est toujours acceptable ci dualité mm-hmm. mais là où moi j'ai un problème bu ma juumee kilifa bi euh, rectifier ma moo di ne dama am impression que Dakar dafa nekk benn obsession pour le pouvoir du président Macky te bokk na si li ma jàpp man ci li yàq liggéeyu président Macky Sall bokk na ci mooy il me faut Dakar de facto et 2014 aller à la à la à la révocation. non c'est-à-dire que. y a la menace na menace bi. je je ne pense pas menace de révocation je ne pense pas loolu il faut nga ñàkk xam-xam dëgg. pour sax aborder ko ba ci jëm. c'est un suicide. et je ne pense pas que ce pouvoir-là. di demee sens boobu je ne le pense pas quand bien même nag lu ñu junj ce pouvoir là en tout cas régime bi lu mu junj dina def tout ba egg ci mais les réalités ont waxuma changé de évolué il y a quatre ans ci ginnaaw jusqu'en 2016 les Sénégalais avaient été presque bouche cousue jusqu'en 2016 jusqu'au référendum Sénégalais yi comme les quatre ans de Wade autant gars yi bàyyi à la veille de 2019 entre 2017 ak 2018 bi ñu génnee ci référendum oui non et cetera 2018 ak i il s'est passé quoi image du Sénégal dem dans un sens où l'impression est donnée que dañuy mater des gens ci ban anam ci injustice ci ban anam ci ay carte d'identité yu ñu bloqué à gauche à droite empêcher les uns et les autres de pouvoir euh, euh obtenir leur droit de vote ensemble boobu mooy li nga xam ni dafa dajaloo ngay dajale muy dajale ba sénégalais yi frustré wu des opposants gën affirmé wu ñu créer le phénomène l'état du Sénégal a créé le phénomène Ousmane Sonko mu nekk la déclic population yi mel ni ñu firi affaire bi jolle coow li na cour ñu dem ci élection 2019 yu catastrophique catastrophique quand bien même on nous a dit pour cent et on est resté deux ou trois jours. yoo xam ni monsieur Kandji le juge a semblé ne pas pouvoir donner les résultats. parce que tout le monde s'attendait à ce que dëkk bi tàkk mardi tali. Mm-hmm. yàlla def sutura ndox mu sedd ñu bàyyi mu sedd affaire bi wàcc les opposants nagam nag ñu génn ci élection yi ñëw ci deux ans ou trois ans au bout de deux ans nga gagné ay élections 2019 deux mille vingt nga dugg coronavirus deux mille vingt et un dëkk mel luy tàkk su fekkee ne que cette population là moo la votel moo la gëm moo la adulé ci deux ans mun leen ci munu ñu la bañ bay egg ak yow ci niveau boobu. donc lu ñu accumulé la depuis longtemps. lu ñu accumulé la depuis longtemps. loolu ñu accumulé malheureusement bi ñu ñëwee ba deux mille vingt événement yi am le président a dit j'ai compris. on s'est rendu compte, moi personnellement, c'est mon avis, on s'est rendu compte qu'il n'a pas compris ou semble ne pas vouloir comprendre. Parce que liñ doon bañ tax population yu mer dafa continuer et ni mu continuer mu indil ñu ci ñu génn mois de mars événement yi fi am parce que l'histoire Adji Sarr ñu génn nañ ci ba yaakaar ni génn nañ ci ñu ñëwaat ba ren porte yi ubbeekuwaat léegi on dit quoi Yewwi Askan Wi gagné na des entre majoritaire ou pas Yewwi Askan Wi am na tuuti nguur gi am na après léegi nga ne non monsieur Sonko à Ziguinchor problème monsieur Barthélemy à Dakar problème et cetera man ci sama gis-gis bu gàtt sénégalais qu'est-ce que je me dis mais quel est le problème alors que ce pouvoir aurait pu essayer de s'affronter gérer moi je peux pas gérer un budget de cinq mille milliards di xuloo kuy gérer cinquante milliards ou soixante di xuloo kuy gérer vingt milliards ou je ne sais pas combien ou dix milliards ci c'est-à-dire ci dégg-dégg après ñu ne ma non attention mbirum politique la ma ne léegi ñun suñu dëkk suñu réew mi Sénégal kilifa yi ko yore ñoom dañ fee toog pour doxal dëkk bi defar ka organiser ka daal di changer suñu dund wala dañ fee toog pour xeex laaj la ba nga xam ni je me pose la question quand on parle de révocation nii nii nii un maire qui s'installe à peine on parle dans le sens menaçant du terme pour un chef d'État j'ai un problème et je me dis cette obsession là risque de de les fatiguer d'accord